الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي يسال سنتار سني بروم سبحانه وتعالى مني ورسغل ñu dajawaat ci ab néegam fa seeni jël ay ayat ci téeram bu tedd bi tey ñu war a jël aaya bu jëkk ci suuratul munafiquun suñu bisub tey bi it di dëppoog la nga xam ne mooy fukki fan ak ñett ci weeru Sha'ban ci 1443 mi ngi noonu di tombe ak le 16 mars ci 2022 ñi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yeneen tam ba moo ñu doon bégal ci jataay yu mel nii la ca nekk ci ay ngëneel yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko mboolem ña nga xam ne it wax ji day yegg ca ñoom yal nañu yàlla boole ak ñoom ak ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom di site yi aju ci jàkk ji yépp ak télévision bii di Islam TV yàlla boole ñu nangul ñun ñëpp boole ñu ci ña nga xam ne dañuy jottali kaddu yàlla ak ñay nangoo déglu kaddu yàlla ci yàlla tax kon incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk doonte ne yàlla it xam ne ne dëgg dëgg yow yaay yonentam waaye wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaazibun yàlla mi ngi seede ne naafiq yi dañuy fen ci loolu ñu ne seede nañ ko ittaxadu aymaanahum junnatan fa saddu an sabilillah jël nañ la nga xam ne mooy ngiñ yooyee ñuy giñ di waat yooyee def ko mu nekk pakk bu leen di aar ba ñu mën a nekk nag di fekk ci yoonu yàlla innahum saa ma kaanu yacmaluun e waay ñoom aka ñaaw li ñu nekkoon di ko jëf dalika bi annahum amanu summa kafaru li waral loolu mooy ñoom dañoo gëmoon gannaaw ba ñu weddi fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahuun ñu daal di kaste ca seen xol ya ba ñoom amatuñu ak dégg mënuñu comprendre wa ida raaytahum tujibuka ajsaamuhum soo leen gisee dana la yéem lool seen jëmm ya wa in yaqulu tasma li qawlihim suñu waxee da nga déglu ñeel seen wax ya ka annahum xushubun musannada ñu mel ne rek ëkk goo xam ne dañ koo wéer yaxsabuuna kulla sayhatim alayhim ña ngay jàpp ne bépp yuux ci seen kaw la jëm humul adu ñoom ñooy dëgg-dëggi noonu faxzaruhum moytu leen leen qaatalahum allah yàlla alak na leen annaa yufakuun fan la ñu mën a dëppoo jëme fa mi ngi noonu mbokk lii mooy suratul munafiqun suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam lu bari woon ca ajjumaam ya daanaka booleeg suratul jumaa di ka taril ci kanamu nit ñi muy wone kon importance ba nga xam ne moo ca nekk suñu borom yàlla dafa dogal bi yonent bi ñëwee am ñu bari ñoo xam ne nii dañ ko weddi woon waaye mu xeex ak yéeféer yi ca badar gañe leen gannaaw ba mu am lu ñu tuddee ghazatul ahzab suñu borom indi fa ndimbalam loolu nag la ñépp ña nga xam ne nii dugg ñu woon ci lislaam daanaka lu bari ci waa madina daa di ñëw nag tuub ci zahir ne dugg nañ ci lislaam fekk ne la leen indi du dara lu dul ak ragal ak intérêt waaye ngëm indiwu leen naafiq dafa am ñaari façon naafiq mooy naafiq al iqtiqaadi mooy koo xam ne dafa gëm ak kéeféer ba pare feeñal ak ak ak ak lislaam donte ne am na la nga xam ne mooy nifaqul amali naafiq ci wàllu jëf moom la yonent bi alayhi salaam doon wax ni mandargay naafiq su waxee day fen su joxee rendez-vous faussé ko soo ko dénkee mu wor beneen riwaaya mu teg ca ne heure buy dagg sante génnuk topp loolu ay bakkaar la yoo xam ne génniwul nit ki ci diine waaye indi na ci yow jukko bu bon jukko bu ñaaw bu bokk ci bakkaar yu mag yi amma nag la nga xam ne mooy lii di nifaaqul iqtiqaadi mooy nit ki daa gëm kéeféer feeñal la nga xam ne mooy ak ak ngëm su ko defee bu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem luy feddali dañ koy indi loolu ñuy jàng tuuti naxu ñoo koy xam yéemuñu rek ci ñu ne seede nañu waaye dañ caa boole innaka muy saxal la di la mu tawkiit ne dëgg-dëgg lu sikk amul yow mi yaa yonent yàlla bi gis ngeen suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne yàlla moom xam ne ne yow yonentam nga waaye moom it mu jëfandikoo ñoom liñ jëfandikoo wallahu yashhadu moom it innal munafiqina la kaasiboon mooy fedd li ñu fedd li yépp suñu borom yàlla moom it jëfee ko ne ñoom dañuy fen donte ne yàlla ci xikmaam su doonte ne daa tëb rek ne naafiqi nee nañu yeneen ci yàlla nga waaye dañuy fen kon ki ak déggam xóotul day jàpp ne kon kii kii du yonent yàlla waaye yàlla daa jëkk a saxal ne ah kay yow yonent bi yàlla nga waaye nag ñoom dañuy fen kon lan lañu fen mooy li ñu wax ne seede nañu ay nangu nañu yonent yàlla nga dañuy fen ci loolu donte ne li ñuy wax dëgg la loolu it mbokk da ngay gis ne lépp loo xam ne dëgg la nit ki wax ko ci bi mu koy wax gëmu ko day fen même bu waxee dëgg gis ngeen day fen même bu waxee dëgg yàlla mu ne dañuy fen léegi nag ngëm googu ñu feeñal feeñal la ilaha illallah muhammad rasulullah loolu aaral na leen seen deret kenn du xeex ak ñoom yonent bi alayhi salatu wasalaam musul rey am naafiq aaral na leen seen alal kenn jëlu ko aaral leen seen njaboot kenn du ko laal loolu nekk junna loo lu leen di protéger ñu profité ci loolu nag lu ñu man ci xeex diine ji ci biir ñu xeex ko te yéeféer moom mooy ki li xeex ouvertement mu feeñ naafiq nag mooy ki xeex diine ji ci biir suñu borom mën a ak a ñaaw liñ doon jëf la ëpp ci ñoom biñ jëkkee dégg yonent bi alayhi salaam gëm nañ ko waaye bañ gisee ni ay intérêt kat nekkul ci diine ji dañoo daal di wëlbatiku topp seen bànneexu bakkan mi ngi noonu comme borom bi la muy wax rek am na ci nit ñi man yaabudullaha ala xarf in asabahu xayrun itmaanna bi wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi intérêt daam lay xool suñu gisee ne seen intérêt am nañ ko ci l'islam bi ñu sax ci bu ñu gisee ne seen intérêt mi nga ànd ak yahud yu bon ya ak yéeféer ya ñu daal di dem ànd ak ñoom ci ci baatin borom boobu nag nee na gannaaw ba ñu gisee ngëm ba pare wecceekoog yéeféer noonu la yàlla kastee seen xol looloo tax ba ngalawaay ñu nga moytuloo suñu doom yu bari ñu bañ a foye seen diine am na ci ay franc-maçon yoo xam ne heure bu ñu gisee ay jeunes cadres intellectuels yu intelligent dañ leen fexe ba dugal leen seen loge yooyu lu nekk ñu digle ko bul joué mukk ak seytaan naan ah naa ci profité rek gannaaw ba ma dund sama diine déedéet loolee day tax ba yàlla kaste sa xol ci képp koo xam ne dafa dem di wecci ak ngëm ci kéeféer borom boobu subhanahu wa taala nee na loolu laa ko def ba du amatuñu ak dégg te loolu mooy musiba bi gën a rëy bu yàlla di teg doomu aadama yàlla na yàlla na musul ñu ci mooy yàlla kaste sa xol gis ngeen firawna la mu doon bon bon bon ñaan nga ko Moussa ñaanaloon mooy yàlla yàlla na nga kaste xolom ba du gëm gis ngeen borom boobu nag subhanahu wa taala ne naafiq yi de boo leen gisee seen jëmm yi da leen di yéem ca en général kilifay naafiq yi mooy ñi jekku àdduna nga noonu ndax baa doole yi néew doole jafe nañ naafiq di dugg seen biir mais ñi jekku àdduna am ca intérêt nga xam ne diine day ñëw ngir yemale leen ak nit ñi xañ leen yenn yi ñoom ñoo gën a jiitu ci naafiq loola tax mu ne boo leen gisee seen jëmm yi da leen di yéem bokkoon na ci seen kilifa gu mag di Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ponkol la woon moo xam ne mi ngi noonu am jëmm ju rëy lu bari ci nit ñi it dañuy naxaate ci loolu da ngay gis ñu ñuy tuddee yenn sëriñ si dañuy tëju xëyuñu gontuñu amuñu benn responsabilité lekk ay ganaar aña ganaar reere ganaar parfum yeeg toilette bu ko defee fu ñu génn ci mbooloo mi leer nañu ñun ha suñ bi ak leer leerug sëñ bi dara leerug ginaar dong la gis ngeen su ko defee mbokk doomu aadama bi kenn du ko xàmmee ci ay ay taaram am na ci ñoo xam ni wallahi dañuy dem bay xeesal di xam ngeen loolu day am ñoo xam ne dañuy takk ay chaîne or ngir lan ngir impressionner seen mbooloo mënoo taaru ba dàq induy yaa ngi dégg kon loolu ñuy feeñal seen jëmm naafiq yi ñoo leen ci jiitu woon tujibuka ajsamuhum mi ngi noonu su ko defee tamit doomu aadama yonent bi alayhi salaam nee na yàlla du xool seen jëmm yi yàlla du xool seen alal yi yàlla li muy xool ci yéen mooy la nga xam ne nii mooy seen xol yi ak seen jëf yi doomu aadama yi ñu ngi gënantee seen xol ñi ngi ëppantee seen xol waaye du seen jëmm yi leen yàlla bindee te la ñu gënantee abadan mi ngi noonu na gis benn waay boo xam ne pesé wul cinquante kilos moo gën a màgg ci yàlla kay di pesé deux cent kilos na gis benn waay boo xam ne mi ngi ñuul kukk ñaaw nu nu ko neexee fekk moo gën ci dëkk bi kon yàlla jëmm yi itteelu ko mi ngi noonu tu'jibuka ajsaamuhum gannaaw loolu it seen wax ya bu ñu waxee nga déglu seen wax yépp Abdullah ibnu Ubay boobee da daan def bu yore bisu àjjuma bu yégee ne yonent baa ngi waaj a génn mu daal di jóg taxaw waaw yéen nag bàyyi leen lépp li ngeen doon def déglu leen yonent yàlla bi mi ngi ñëw ah yàlla koy waxal lu mu wax dégg leen ko ca dara la ci gëmut gis ngeen dara la ci gëmut te loolu it mi ngi noonu ba tey da ngay gis ñoo xam ne impressionnant la ñu doon mbooloo muñ taxaw lu ñu wax dañuy impressionné yépp te fekk li ñu wax gëñu seen intérêt dong moo tax ñuy wax borom boobu nag subhanahu wa taala ni dañoo mel ni ëkk yu ñu wéer ca mbokk ëkk buñ ko wéeree la ko wéer bu daanu rek mu daanu am déet kon it ñoom seen waat ya ak seen giñ ya rek ci la ñu sukkandiku waaye amul lenn lu gëm lu ñu taxaw naafiq it foo ko fekk rek am na kenn ku mu yaakaar làqu ci gannaawam waaye amul ñu seen kàttanu bopp ak seen fitu bopp xóoche ba musannada dara nekkul ci ñoom ëkk mooy loo xam ni dundul ëkk garab goo xam ni dundul ñu wét ñu wér ko rek mi ngi noonu gannaaw ba suñu borom mu ne bépp yuux gu ñëw rek ne leen tey la ñu dee kulla sayhatin alayhim moo tax heure bu aaye jihad wàccee suñu borom wax nañu ko ay aay yu bëri tarahum yanzuruna ilayka nazra al makhshi alayhim min al maut ba yonent bi dee tere aaye naan yàlla ne lañu jihaat yi dañuy mel ni ñu xëm mi ngi noonu lu tax ndax ragal ga nga xam ne ragal nañ ko mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ni ñoom nag ñooy noon yi humul adu te moo ko xam leen ni noonu jullit ñi dëgg-dëgg mooy naafiq yi na am boo xoolee yéeféer yi ñooy noonu yi feeñ waaye l'islam fu mas a amee problème rek yéeféer yooyu ci naafiq yi lañ jaar ngir naxasal l'islam looloo tax dëgg-dëgg noonu l'islam moom mooy naafiq yi nekk seen biir te loolu mooy espion rek ku ne xam ne dans société ci àdduna yépp ki ñu gën a ragal mooy espion mooy ki xam sa biir xam sa biti ba pare dem di rendre compte say noonu naafiq yi dañ doon jaxase julit ñi jël ci rek misaal keroog xaswatu uhud yonent bi alayhi salatu wasalaam ñetti junni yéeféer jóge nañ makka jëm madina yonent bi dajale armée madina yépp muy mille personnes bañ demee ba ci yoon ba abdullah ibnu obay convaincre na trois cents yi delloo leen gannaaw gis ngeen yemul ci loolu suñu borom nee na iz hamma taifataani minkum an tafshala même gannaaw loolu sax am na ñaari jiir ci waa ansaar xaw lu ñu dëpp topp leen suñu borom mu ne wallahu waliyuhuma donte ne yàlla moo leen saxal loolu moo tax même keroog xasatu tabuk ba nga xamee ne moom foofu daa sori naafiq yi toog suñu borom mu ne law xaraju fiikum ma zaadukum illa xabala wala awdau xilaalakum suñu génnoon ci yéen daan duñ leen dolli lu dol lor ca daañ leen jaxase loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokku occidentaux la am noonu l'islam bu mën a doon yahut ak lu mën a doon heure bu jekkoo julit ñi rek man ka jaare ci naafiq yi nekk seen biir yal na yàlla musul ñu seen ay bari na ci ay julit yoo xam ne ni tey ñi leen découragé ci dem jàkka découragé leen ci jaamu yàlla mooy ay naafiq mi ngi noonu mooy ay naafiq humul adu ñoom ñooy dëgg-dëgg noonu fahzaruhum na nga leen moytu borom bi subhanahu wa taala nag mu ne yàlla ngi xeex ak ñoom yàlla du xeex ak kenn qatalahumullah ay yàlla moo leen alak ma ñoom ana fan la ñuy dëppoo bay mën a jënne ngërëmal yàlla ca la nga xam ne mooy alkaangeeg yàlla mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون
بارك الله فيكم سن بروم جل وعلا مني نافق يويو وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله buñ leen waxee ewaay kaay leen mu jéggalul leen yonent yàlla bi lawwaw ru'uusahum ñu daadi lem seen bopp ya wa ra'aytahum yasudduun nga gis leen ñuy nekk di fegaate wa hum mustakbiruun nga gis leen nekkit ñu nekk di rëy rëylu sawaa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum yow yonent bi dana yemoo képp ci ñoom nga jéggalul leen ak nga bañ leen a jéggalul lan yaghfira allahu lahum ñii day yàlla du leen jéggal mukk inna allaha la yahdi alqawma alfasiqin yàlla day du jubal mukk xeet boo xam ne dañoo génnuk topp hum alladina yaquluun naafiq yooyu ñooy wax laa tunfiqu ala man inda rasulillah bu leen dépensé te ci kenn ku nekk ca yonente bi yàlla ba xatta yanfaddu ba baa ñuy tasaaroo ba ko walillahi xazainu alsamawati wal ard doonte na xamuñu ne ñeel na yàlla màngasiina asamaane ak suuf walakin almunafiqina la yafqahuun waaye naafiq yi day amuñu ak dégg yaquluuna la in rajacna ila almadina ña ngay wax ne bis bu ñu delloo ca madina day la yuxrijanna al aaz minha al azal dana fa génne ka gën a tedd ka fa gën a suufe walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin doonte ne teddaa nga ñeel na yàlla ak yonentam ak ña gëm walakin al munafiqina la yaclamuun waaye naafiq yi day nekkuñu di xam mi ngi noonu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne ci atum juróom benneel ba dem na di xeex ak giir gu ñuy tuddee bann mustaliq mi ngi noonu ka nga xame ne nii mooy soxnaam sadi juwayra fa la ko jële woon ndax pappam di xaaris moom moo nekkoon kilifa dëkk ba yonent bi xeex ak ñoom yàlla dogal ñu gañe leen jàpp ci ñoom ay jaam yu bari bokkoon na ca jaam yooyee ki nga xam ne muy jooyra mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko dama bëgg nga may ma pour ma gore fekk keneen moo ko jàppoon yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ah waaw mën naa la may day gorel la jox la loo xam ne da nga ko jox ñu la jàpp pour nga gore waaye ndax da nga bëgg nekk sama soxna soxna si daal di koy nangul loolu na am ndax lu bari ca ñoom seen dëkk yooyu xamoon nañ ñi ki yonent yàlla la doonte ne affaire xeet beneen mbir la bi mu ko nangulee loolu yonent bi alayhi salaam goreel ko daal di koy takk sallallahu alayhi wa sallam sahabatul kiram bi ñu yégee ne yonent bi alayhi salaam takk na jooyara fekk jàppoon nañ ci seen waa dëkk lu jóge téeméeri nit ñu ne ah déedéet ñun mënuñoo jàpp ay jaam ñoo xam ne goro yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la daal ne leen dem leen ni bi yéen ñëpp jéggal nañu leen bàyyi nañu leen ñooñu it xam ne lii mbokk ci yàlla rek la mën a jóge nit yàlla rek a mën a def lii am déet ñoom ñëpp ñu daal di tuub dugg ci biir l'islam ni nga noonu looloo tax yaay Aïcha ak jigéen li muy fiira moromam yépp daana wax xamul sëy bu gën a barkeel sëyu juwayra ndax sëy bi mu sëy yonente bi alayhi salaam ca la waa dëkkam daal di tuube loolu it mu lay won bokk na occidentaux yi fi ñuy jaar ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yonente bi bépp soxnaam boo gis mu takk ko rek dafa am stratégie boo xam ne moo waral loole mi ngi noonu xikma bu nekk ca gannaaw loolu léegi nag ñu nga jóge ca Banu Mustaliq di dellu ca Madina kii di Omar ibn al-Khattab amoon na benn booyam mu yónni ko ca benn teen bu ñu romb mu fay root mu daje fa ak benn booyu Abdullah ibnu Ubay kilifa naafiq yi Madina yépp loolu bi mu amee ñaari xale jàppante fa kilifa doomu ki nga xam ne abdullah ibnu ubay moom la yónni daan ne ay yéen waa ansoor kaay leen dimbali ma ci kii booyu omar bi it daan ne ay yéen waa muhajiroon kaay leen dimbali ma mbokk ñooñu ñëpp ci ceddu lañ juddu ci ceddu lañ yaroo te xam nga deretu ceddu dafa gaaw a yëngu an sëñ bilaal deretu ceddu dafa gaaw a yëngu loolee tax ba ku nekk ci ñoom jóg ne lu tax ngeen di néewal doole suñu waay ba affaire yonent bi ñëw calmer leen ñu calmer Abdoulaye nag bi mu yite gaa yi mu ne lii rek yéen a ko def arab nee na sammin kalbaka ya yakulu ka ah sa sa xaj boo ko dóofi la mu lekk la yéen a ñëw séddoog ñoom seen alal nangam nangam sambata njaay ah xam nga lu ngeen ñi def bu ñu demee Madina bu ñu lekkati seenub dërëm gis ngeen fekk gaa yi seen deret tàng na yu bëri fàtte nañ ko ba pare xaaral rek sax lii lépp moom la bis bu ñu demee Madina kii moom danaa fexe génn ko dëkk bi ca booba waa ansaar dañoo juboo woon waa aws ak xasraj dañoo yàgg xeex seen diggante ñu dem nag ba benn jamono ñu ne daal léegi nañ juboo ut benn buur boo xam ne mooy jiite Madina biñ demee bay xalaat lool rek ca la yàlla yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc yonent yàlla bi gàddaay ñëw Madina Abdullah mi nga xam ne jàppoon na ñoom la ñuy fal buur léegi yonent bi mooy buur loolu nag mu téye ko ci xolam nag mënu koo muñ mu ne nag léegi benn bu ñu demee fexe leen ba un bu ñu un leen joxate dara loolu bi ko Abdullah dee wax mu am fa benn xale boo xam ne ma nga fa nekkoon te doon Zayd ibn al-Arqam daa ji dem ci yonent yàlla bi ne ko ah dégg naa Abdullah ibn Ubay di lii la wax yonent bi ne ko ah mu ne waaw ñu woo Abdullah ibn Ubay na ko waaw yow yaa wax nangam nangam mu ne ko ku la ko wax ku la ko wax moo mën a fen wax jooju nan laa koy waxee gis ngeen ba lenn ci saxaaba yi sax di dal ci Zayd waaye yàlla mi nga xam ne moo xam kumpa yàlla wàcc Jibril dëggal xale bi xam ne lii mu wax moo ko wax gis ngeen bañu delloo ci moom ne ko ah alxuraan wàcc na de pour xamal yonent bi li yaa ko wax demal yonent bi jéggulul la mu laay fan laay dem du ma jéggulu fenn gis ngeen rëy rëylu mustakbirun waaw du ma jéggulu fenn moom la borom bi di wax ne buñ leen waxee kaay leen yonent yàlla ba jéggulul leen ñu daal di lem seen bopp yo lan fan laay dem di jéggulu ay waxi xale rek danaa ci basé wu gis ngeen borom bi nag subhanahu wa taala ne yonent bi alayhi salaam yemoo na nga jéggulul leen seen bakkaar ak nga bañ leen a jéggulul yàlla moom du leen jéggulul mukk ci àdduna yàlla du leen jéggal mukk ci àdduna te loolu mbokk nañ xam ni abdoulaye boobee wax wax joojee keroog bi mu faatoo da ngay gis ni doomam ja di abdullah la tuddoon moom it abdullah ibnu abdullah ibnu ubay dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah góor gu bon ko deene de boo ci jàppul yàlla dana ko dana ko mbugal de dégg nga kaay jàppale ba nga jullee ko nga ñaanal ko dégg nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël mbubb boppam jox ko pour ne nañ ko ko sànge bi mu ñëwee ñu indi ko yonent bi jóg di ko jullee Omar ibnul Xattaab na ko yow mi yàlla yoon kii doo ko fi jullee naafiq bu bon bi dootu ko fi jullee gis ngeen mu ne ko Omar suñu borom def na ma bu la neexee jéggalul ko wala nga bañ koo jéggalul am na feneen aaya borom bi jëne wa in tastaghfir lahum sabiina marra falan yaghfira allahu lahum boo leen jégguloon soixante-dix fois du ma leen jéggal kon yàlla daf maa tànnaloo bàyyil mu jullee ko rek waaye bu mu ko jullee dem ànd ca rob ba ñu ne yonent bi alayhi salaam bokkoon na ci ñu ko doon dugal ci bàmmeelam mbubb yonent bi lañ ko muure yonent bee ko jullee yonent bee ko dugal ci bàmmeelam waaye day génn armeel ya yegg si yàlla yónni jibril ne ko nag bis nekk tey wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan bu leen ti julleen ti mukk ñii yéeféer la ay safara lañ jëm mbokk lii mooy li ñuy indi ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam donte ne benn kilifa dee na ci yëmbal am kilifa ak diina ci Sénégal ñëw ñëw ci rob ba mu ne waaw nañu xam ne day leen rafet njort ne am na benn waay bu sàgganoon mbon gu ne def na ko bi mu deeyee am góor gu baax gu tëdd gis ko ci gént ci àddina yi gën a kawe mu ne ko waaw yow kàccorte gi nga nekk woon noo def ba yëg ci àddina yi mu ne hee man de dama am sens ndax keroog bi ñu may jullee dafa am benn dof bu fekkoon mbubum sëñ diw mu ràpp mu ñu sànni ca mbalit ma dof bi jël ko sol ko ba mu fekkee ñu jullee mu taxaw ca mbooloo ma mbub moomee ca la ma yàlla jéggale yaa ngi dégg fii ci yëmbal mbokk julit ca abdullah ibn ubay gis nga fi mu jaar ak suñu borom yàlla mu ne du ko jéggal kon borom bi mu ne yeemoo na nga jéggalul leen ak nga bañ leen jéggalul yàlla du leen jéggal mukk loolee ñu wax ni bu leen dépensé ci julit ñi ba baa ñuy tasaaroo borom bi mu ne xanaa xamuñu ne magasin asamaan ak suuf yàllaa ko yor su ko defee yow julit gëmal ni amul kenn koo yor yoroo say doom yoroo say soxna yal na yàlla yërëm suñu mag ji Cheikh Souleymane Gueye mi ngi doon netti seen benn sëriñ su ma saan ñëw ci kër gi ñu indi añ bi danaan kaay leen jël seen wërsëgu borom kaay bi naan kaay leen jël seen wërsëgu borom mi ngi noonu yow mi jàpp na yaa yor sa kër gi sa salaire bi moo leen yor déedéet mën na am bis boo deeyee la kër gi di gën a neex waaye yow it bul jàpp ne kenn la yor ku dul yàlla yow julit sa baay yoru la sa jëkkër yoru la sa chef de service yoru la sa général d'armée yoru la sa wërsëg ci yàlla la jóge place bu mu mën a doon buñ la fa dàqee mën na am nga am place bu ko gën téeméer yoon sëy buñ la fasee na ko noonu su ko defee jullit day wékku xolam ci borom ba subhanahu wa taala walillahi xazainu samawati wal ard gannaaw ba loolu mu wax ni suñu delloo madina day ki gën a tedd dana fa génne ko gën a torox wax jooju ba mu ñëwee ba ko omar déggee dafa bocc jaaseem eyu mi yàlla yónni kii naafiq la ay mbiram leer na bàyyi ma rey ko yonent bi alei salaam na ko omar da ngaa bëgg nit ñi naan muhammad mi ngi rey ay sahabaam da ngaa bëgg nit ñi nit ñi bu ñu déggee maa ngi rey samay sahaaba lu ñuy wax te loolu di mbir boo xamee ni nii ndaw julli war cee bàyyi xel du dëgg yépp la ñuy la ñuy jëfee mbir mën naa nekk dëgg waaye bu dee buñ ko jëfee mu indi lor gu gën a metti loolu ngalawaay nañ bàyyi toleero loolu moo tax yonent bi musul rey ay ay ay ay saxaaba waaye ba ko doomi boppam déggee di abdullah moom it daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko li yàlla wax sama baay kii dañ ko war a rey ayu mi yonent yàlla jox ma ndigal su dee dañ ko war a rey ma indi la léegi boppam parce que bugguma beneen julit di ko rey ma koy xool kii mooy rey sama baay bu dee dañ ko war a rey rek baan ma rey ko léegi gaa yi loolu xam naa dina li yéem di waaye dellul suratu qad samia ah luñ jàngoon abdullah ibnu ubay nu mu def baayam keroog xare badar moo dagg boppu baayam mi ngi noonu ba mu dajeeg baayam moo re- moo ko rey loolu mu ne ko kon yonent bi ne ko déedéet bàyyi ko bàyyi ko waaye wax jooju mu wax ne buñ demee madina ka fa gën a tedd jàppale na mooy moom ka fa gën a suufe ma yonent yàlla bi dana ko fa génni abdullah dafa daw jiitu ca buntu madina rasul sallallahu alayhi wasallam mosan ànd ak armée moom ab sàmm la gaa yi xam ngeen sàmm day jiital jur gi topp ci gannaaw am déet looloo tax moom da daan nekk ci gannaaw jiital sahaaba yi abdullah dem taxaw ci bunte madina gaa yi ñëw di jàll di ñëw di jàll ñëw di jàll ba bàyyam yegg si mu jël jaasi bi teg ci put gi na ko boo yëkkati say tànk may dekkale sa bopp doo fi dugg lu dul yonent bi moo la jox ndigal yaa ngi dégg mu taxaw foofu ba yonent bi alayhi salaam ñëw abdullah na ko waaw yonent yàlla waxal sa waa ji waay gis ngeen yonent bi ne ko lan la mu ne ko yow mi yàlla yónni yaay ki tedd mooy ko torox soo ko joxul ndigal du dugg madina gis ngeen mu ne ko waa bàyyi ko mu dugg mu ne ko demal torox kii yaa ngi dégg mi nga noonu lu tax loolu mbokk ñooñu yàlla ak yonent bi moo leen gënaloon ku dul yàlla ak yonent bi yàlla ak yonent bi moo leen gënaloon ku dul yàlla ak yonent bi comme nañ ko jàngoon fi xad sami mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala kon loolu lay wax mu ne lii di teddaa ngi dëgg-dëgg nañu xam ne yàlla ko yor ak julit ak ak yonent yi ak i gëm yàlla ngallaawaay ndawal jullit yi sóoraale loolu xamal na teddaange nekkul ci ay diplôme nekkul ci alal nekkul ci nguur teddaange bi sax àdduna ak allaaxira yaa ngi koy amee ci ngëm gu sell ak jëf ju baax li rek nga ko mën a amee al mu'minin ñoom rek ñoo am izza keneen ku dul kooku mi ngi ci bay bayle mboolem nit yi àdduna doo dem ba am nguur gi firawna amoon doo dem ba dajale li qaaruna amoon ila axiri su ko defee kon xamal ne teddaa ngi dëgg-dëgg mooy diina bu sell ngëm gu sell ak jëf ju sell yal na yàlla teral ñu àdduna ak alaxira mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون جزاكم الله خيرا سنبرم جل وعلا مني يا أيها الذين آمنوا أي وين نيغا خامني داغينا گم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله بوم لين إتل مك سين علالي أك سين دومي كي فاتلكو يالله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ku def loolu day xam leen ne ñoom ñooñu ñooy ña perte wa anfiqu mimma razaqnaakum ay waay dépense leen ci li ma leen wërsëgal min qabli an ya'tiya ahadakumul mawt jiitu muy dëkkal kenn ci yéen ak dee fa yaquula rabbi lawla axartani su ko defee mu ne ay yàlla anu lu teewoon nga yéexe ma rek ila ajalin qarib ba ci dig boo xam ne bu jegalee doon fa asaddaqa wa akum min alsalihin ngiree man ma sarxe bokk ca gaa yu baax ya walan yuaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha doonte ne yàlla du yéexe benn bakkan su dee ab digam ñëw na wallahu khabirum bima ta'malun te yàlla day ku ñàkk kumpa la ci li ngeen di jëf mi ngi noonu mbokk julit julit daiman da ngay war a gëm ni adduna bi yàlla dale fi indi ngir nattu la nga di fi jaar di jàll fii mu ne nii ñi ngi romb di dem bu leen jàpp dañoo toog de temps bi ngay romb fu mu mën a doon mi ngi wàññeeku ci sëg dund mi ngi wàññeeku sëg dund loolu tax yu leen ci bàyyi salaam doon wax ni kun fi dunya ka annaka gharib aw abiri sabil del mel ci àdduna ne ab immigré bu fi ñëw rek di lijjanti lu mu yóbbu ca dëkku cosaanam mi ngi noonu wala nga jàpp sa bopp koo xam ne dafay romb benn dëkk di jàll mi ngi noonu yaa ngi tukki dugg biir Thiès di ko traversé di dem àdduna it dañ koy traversé nii di dem lañu fi indi woon mooy ñu jaamu yàlla ngiree dem aljanna loolu moo tax ba la nga xam ne muy pilier ci yàlla gërëm ñu ca mooy zikrullah ba nga xam ne ba ca gën a màgg mooy julli suñu borom yàlla mu ne ay yéen jullit ñi fexe leen ba lijjal ci seen alal yi taxawu seen njaboot gi bu mu dox seen diggante ngeen fàtte li di zikrullah ca doomu aadama bi mbokk li la siq mooy sa njaboot sa alal ak sa jëf bis boo deeyee njaboot gi moom dëpp nañu alal ja séddoo nañ ko nga des fa ak sa jëf kon bu doon te ne njaboot ga ak alal ja yàqoon nañ sa zikrullah yow perte nga ku mel ni suleyman alayhi salaam yàlla subhanahu wa taala defal na ko buur tàggatal ko lu bëri bokk na lu mu ko tàggataloon ay fas yu bëri fas yi nekk di défilé mu leen doon tàggat ngir jihad fas yi nekk di défilé di dem di défilé di dem ñi ngi waroon na julli tàkkusaan ñu dem ba mujj rek jant beso suleyman ne bismillah jam maa ngi nekk di xool yiw wii ma yàlla wërsëgal mu itteel ma ba jant bi sono delloo si leen ma fas yi ñu delloo si fas yi mu rey yépp mi ngi noonu mu rey yépp daal di koy joxe te loolu dagoon na seen sharia ñu koy lekk même ci sharia islam li gën a wér mooy texte bu leer buy araamal fas amul ala kulli xaal mi ngi noonu bu ko defee yow julit moytu lenn loo xam ne day dox sa diggante ak julli jot julli wuloo ak dem ca jàkka ja ak fàttaliku sa borom suñu borom nee na ki def li yaay ci perte képp koo xamee ne ni sa njaboot tax na ba nga sàgg na sa diine perte nga àdduna perte nga àllaxira ngalla waaye nag dépense leen ci li ma leen wërsëgal mi ngi noonu balaa dee di leen dikkal benn suñu borom mu ne dépense leen ci li ma leen wërsëgal mbokk yàlla laaju ñu suñu alal daf ñoo laaj lenn ci suñu alal tey zakat bi gën a foor mooy zakatu mbay nga xam ne suñu borom danaan la tool bi séddale ko fukki xaaj yóbbul juróom-ñeent yi benn bi joxe ko ci yàlla tax bu leen zakatu xaalis alal ji xaaj ko ñeen fukki xaaj fanweer ak juróom-ñeent yépp dellool ci sa koof un ci ñeen fukk boobu ngay jox miskin yi kon mbokk yàlla lim ñu lim ñu sant bariwul mi benn ñaareel ba alal ji bu doon suñu alalu bopp la ñoo ko moom ñu ne waaw yàlla mën a déedéet man maa leen ko wërsëgal te julit da ngay war a gëm ni li nga am la ak li keneen am yépp wërsëgu yàlla la lu waay am rek la tax mu am ko nit ëppale na ko ko fuuf ci amu ko am déet bu dee doole yi ñu ko ëpp doole ngi fi xam-xam ñu ko ëpp xam-xam ngi fi juddu ci réew mi ñu ko ëpp ak juddoo ngi fi kon yàlla mooy wërsëgal mu ne nag li nga xam ne wërsëgal naa leen ci jël leen ci joxe balaa dee di leen dikkal ndax bu dee dikkee doomu aadama bi la muy jëkk xalaat mooy ewaay la ma yàlla wërsëgal ma nar koo bàyyi gannaaw te loolu la woykat yi ndakaaru yi di wax bari la bari bari la bari la bàyyi ko gannaaw néew la néew la bàyyi ko gannaaw am déet su ko defee da ngay xalaat ay waay la ma nar a bàyyi gannaaw yàlla may ma mu dundaat tuuti rek jiital ci sama bàmmeel joxe ci yàlla tax ca lu ñu jàngoon ca gannaaw mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne dee dafay dajeeg ñun dee daf ñuy bett loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee bu doon yàlla daf ñu wutal benn délai ne ku am téeméeri at mooy dee wala sax ku feebar mooy dee nga ne su ma feebaree waaj waaye mbokk logique dee amul lenn loo xam ne moom la àndal am déet yéen ñëpp am ngeen cent misaal yu ngeen mu mën a jox waaye maa ngi wax misaal boo xam ne nii rek mi ngi dal suñu mbokk bi Bilal Thiam yaakaar naa samedi la xaw ma dimanche benn xale boo xam ne xale bu ndaw yor taxi am ku muy yëpp ay bagage fii ci Thiès wàcc nañ bagage yi di ko yéege troisième étage bagage bi dem ba ci ko buum bi dagg fekk ko fa asama ko foofu la dee te mi ngi gaari nii otoom mi ngi noonu loolu mbokk ku ba muy xëy di dawal otoom di wër di ku nekkoon tey tey ngay dee ndax dana ko gëm laa ndax bu xalaatoon dee sax naan damay accidenté sama oto mais accidenté wul sax ci biir oto bi mi ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee dee googu nag comme day bette li xel nangu mooy lépp loo xam ne bu la ci dee fekkoon nga def ko fexeel def ko léegi moom la abdullah ibnu omar doon wax naan keroog ba ko yonente bi dénk loolu fa ida asbaxta fala tantazir al masa wa ida amsayta fala tantazir al sabah lépp loo xam ne jàpp nga ni lii lu baax la bul xaar ba suba lépp loo xam ne lii lu bon la bul xaar ba suba bàyyil lu bon defal lu baax gis ngeen loolu it tamit suñu borom yàlla lu dul ci mbaaxam may nañu li ñu tuddee wasiya julit am nga droit li la yàlla wërsëgal nga bind ci benn testament ne bis bu ma dee nañ ma defal nangam nangam sama alal tant que paasewul sa ceeru alal islam dana ko nangu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ni yàlla du yéexe benn bakkan bu dee digam dafa ñëw mbokk bakkan yi ay dig la ñuy am su ko defee dig boobu bu ñëwee kenn mënu koo dandal borom boobu nag subhanahu wa taala ni yàlla lépp loo xam ne yi ngi yéen ngi koy jëf moom day nekk na koo xam ne nii ku ci ñàkk kumpa la loolu moo tax ba ngalawaay yow julit saar bi di suratul munafiqun day wone ñi nga xam ne dañuy feeñal ak mbaax di nëbb lu bon waaye yow julit da ngay xamee ni sa borom ni mu xamee sa biir noonu la xamee sa biti noonu ni mu xamee say wax ak say jëf noonu la xamee it la nga xam ne moo nekk seen biir xol su ko defee foo toll nga koy ñaan yàlla yéwénal la say jëf zahiran wa batina yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam yi ko gëm yàlla na ñu yàlla musal ci naafiq musal ñu ci ak kéeféer bokk ñu ñuy gëm yàlla gëm yonent yàlla mu boole ñu ak yonent ba ci firdawsil aala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilah day wax ne ay ñoo xam ne dañoo gis ay góor jigéen ñoo xeex ak ñoom nangu seeni ordinateur ak seeni portable ndax loolu am nañ droit ci loolu mbokk nañu xamee ni la nga xamee ne mooy xeex nit ki jël alalam loolee ki am droit def ko mooy attekatub lislaam amma keneen ko dul attekatub lislaam soo gisee lu bon soo ca mënee wax nga wax ca soo ca mënee jëfit ba lu bon la deñ so la ngay def lu bon loolu deñ amma li ñuy tuddee punition masalan jàpp tey ab góor jigéen islam dana nañ ko rey ndax ay ndaw am nañ droit jàpp ko rey ko dañ naan déedéet alalam ndax mën am nañ droit nangu alalam yépp dañ naan déedéet amma ka nga xam ne mooy attekatub l'islam nag kooku moom am na droit xool punition ba nga xam ne da koy teg ci ñuy jalgati ci ëttub ëttub ëttub l'islam mi ngi noonu dañ leen di rayam dañ leen jël seen alalam dañ leen di tëjam loolee moom ki yor kaddug atte moo am droit ci loolu mi ngi noonu kii mu ne dafa am ku mu signanteel benn contrat ba pare léegi bàyyam na ko déedéet bul dem ci liggéey boobu demal liggéey bële ala kulli xaal mbokk julit ab julit la nga xamee ne ni da ko signé ne da koy def loole bàyyam wóorul ko tere loolu lu dul daa gis ne loolee ak lorom da caa nekk wala ak ngaañam da caa nekk mais daal bu dee fam ko teree fam ko bëgg mu jëm fa ak fam ko teree jëm ñoom ñoo yem bàyyi amul droit ci loolu te tamit yow mi joxe sa kaddu ba pare ngant rek ci ngantul islam moo war a tax ngay tegg sa kaddu googee ndax jàngoon nañ ci li paas rek yaa ayyuhal lazina amanu lima taquluna ma la tafalun lu tax ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko jëfee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam xam naa bala may fàtte rek ci xam nga groupe yi aju ci jàkka ji dafa am ay tontu ñuy tontu talaata bu nekk talaata bi passé dafa am ku doon laaj te dafa nekk ci benn hôtel hôtel ba nag moom mooy commandé boisson ya fa nekk boisson alcoolique yi ak boisson yeneen yëpp te it moo koy distribuer léeg-léeg ñu waxoon ko ne ne loolu jullit warul liggéey ci poste boobu da nga fa war a jóge waaye malheureusement bi ñuy tontu question bi damaa wax ne kuy liggéey ci benn hôpital loolee képp ku dégg rek dégg alcool dégg hôpital day jàpp ne alcool bii ñuy jëfandikoo moo tax ñuy wax déedéet question ba ci hôtel la jëmoon de un ñaareel ba ñu xam ne alcool bi ñuy jëfandikoo ci góom yeeg yu demee noonu alcool boobee li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne duggul ci sàngara bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala da ko da koo araamal loolee beneen façon alcool la comme bu ñu naan misaal bi ci mbokk bi doon joxe démb li nga xam ne mooy soie pure ak li ñuy tuddee soie yi polyester yi polyester yi terewuñ ko ko sol soie pure lañ tere góor sol ko kon daal képp ku dégg question boobu nga la waay bu ko mënee jottali comme ko jottali question ba ci hôtel la jëmoon jëmul woon ci hôpital boisson it boisson alcoolique yi sàngara lañ ca wax waaye waxuñu alcool ci boppam wallahu aalam naam waaw bismillah naam waaw waaleykum salaam wa rahmatullah naam la déedéet déedéet déedéet déedéet loolu loolu amul hadis bu ñuy autorisé ca saar yu ñuy autorisé ci alquran loolee amul loolee amul nañu xam ne daal yonente bi alayhi salaam daan nañuy wax ñuy jàng baril jàng suratul mulk saar la ba xam ne dana musal nit ki ci mbugalu bàmmeel am na riwaaye dana layal ki koy jàng ba tàbbal ko aljanna yonent bi alayhi salaam dana wax ne alquran dana ñëw yowmal qiyaama di layal jaam bi muy suratu baqara ak ali imran ñoo koy jiite ñu mel ne amamataan wala gamamataan ñu mel ne ñaari pigeon wala ñaari nuage yu weex daan ñëw di layal jaam bi ba tàbbal ko aljanna ki dugg aljanna yonent bi alayhi salaam danaan dañ naan ko jàngal di jàng li nga mënoon ci alquran muy jàng di yéeg di jàng di yéeg ba aaya bi mu jël mujj a jàng loolu mooy li ñëw ci hadis par rapport aljanna ak alquran waaye saartel ak saartel rek lañ fa autorisé loolu moom du wax ju dëgër wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam dañ koy laay biir rek ku mel na noonu dañ koy laay biir képp koo xam ne say wax ak say jëf kiyul loolu baaxul dañ koy laay biir mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam mu ne boo xamee ne taxawal anniversaire dafa xaraam ndax bu ma sama yaay waxee demal fa war nga faa dem lépp lu mu jàpp ne daa xaraam du yaay du baay du jëkkër kenn ku war a tax mu dem fa dañu xam ni rasul sallallahu alayhi wasallam dane la taati li maxluq fi maasiyati alxaaliq xanaa kay li ñuy wax mooy seet ndax la ngay wax araam nag araamul waaye yow koy bu dee yow juge nga ba ne daa xaraam amul kenn ci jaami yàlla ko war a tax ngay maslaak moom ba dem di ko defal lu xaraam lii nga xam ne waajib la faratal bu yàlla gàll ci yow amul kenn ci jaamu yàlla yu koy maslal ba tax nga bàyyi ko lii moom jurit da ko war a xam xam ne kilifa yi kilifa yi mooy yàlla ki gën a yee ñu topp ko mooy yàlla mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain